arbitre bi siflé waat na ginnaaw bi Ahmed Deme delluwaatee ci ardo ba ñëw Ahmed Deme ak Cartouche bu Soweto wan ginnaaw noonu Ahmed Deme ngeen jàkkaar lool Cartouche sànni na Cartouche sànni waat na Ahmed Deme fayu na waaye loolu laaw la ñoom ñaar xeexu mbedd la ñuy def ay laaw law ba wëndeelu moom moytul leen ma ko Cartouche dooraat na Cartouche dooraat na Cartouche a door Cartouche a door Cartouche jàpp na Ameth Dème Ameth Dème añ ko sol nako ko Ameth jàpp na ci ngemb Cartouche na ci ngemb ñaari xale yaa la ilaha illallah ñaari xale yaa ngi Cartouche jàpp na ci ngemb li ba mu dëgër Ahmed Deme jàpp na ci ngemb ba mu dëgër door ci faari Cartouche door na léegi moom tamit laa ilaaha illallah jëlamut jëlamuta jëlamuta jëlamuta arbitre na jëlamul jëlamul nee na leen Ameth Deme ak Cartouche la ilaha illallah ñaari xale yëngal nañ lamb ji Ameth Deme ak Cartouche ak Ameth Deme Cartouche Ameth Deme la ilaha illallah ñaari xale lu rëy ñaari xale yaa ngi lu rëy Cartouche ak Ameth Deme Cartouche ak Ameth Dème Cartouche mu ngi dugalaat ko Ameth Dème jàpp na ci ngemb Ameth Dème da koo dengeñ xëccaat na ko ko mais Cartouche bañ na loolu lañ ko def sànq mu rëb du ko nanguwaat ndeysaan bu amul seeral Cartouche su sewetoo moo leen wan ginnaaw noonu Ameth Dème moo ngemb moo ngemb lu xonq laa ilaaha illallah ñaari xale yaa ngi re kartu sànni waat na kartu sànni waat na Ameth Dème jàppante bi la bëgg ndax gis na ne xeex bi doonatul avantage am kat Ameth Dème laawaat na Cartouche bëgg jàppante ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex ñu ngi xeex ndax du ko daan gàttus ak dame dem laa ilaaha illallah waay waay ñaari xale ngi yëngal lamb ji waay laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Ahmed Deme daan na ko Ahmed Deme na ko Ahmed Deme daan na ko Ahmed Deme daan na Cartouche laa ilaaha illallah